bismillah in waliyallah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalib yi nga xam ne yéen ñu bàyyi xel fii ci kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul gi nekk ci Daarul Manaan nu gën ko xam ci ancien garage Dakar ci départ bu am solo bi nga xam ne soxna maam Issa Mbacke njiitul fédération Ahlu Café bintu Serigne Mourou Fati Xari Mbacke fas na ko yéene defee fii ngir waaj dem ca pàkk bu sell bu barkel ba di Sarsara xam ngeen ne nag at mu jot la baaxoo fanaan ak mboolem bokki taalib yi muy àndal yëpp bu nu xëyee nag fii leen ñu daal di waaj bu ñu julee fajar ba noppi daal di dugg ci oto yi noonu ngeen gis euh, bokki taalibe yi di dugg noonu ci oto bi bu ko defee nag soxna si daal di ànd ak ñoom ngir jëmale wutali nag pakk barkeel ba bokki lii di lu am solo loo xam ne siyaara Sarsara day euh, loo xam ne warteef la ci mboolem taalibe yi ndax bi Serigne Touba nekkee Sarsara fii la ma ngi daan bàyyi koo dem di fekk Serigne Touba Sarsara soxna si nag ci liggéey bi muy liggéey Serigne Touba tax at mu jot mu ànd mbooloo mu takko takku dem nemmiku ci jéegoy mag ña waaye barkeelu ji ca pàkk bu sel di Sarsara kon nag gis ngeen ko noonu départ nañu soxna saa ngi noonu di génn euh, mbooloo maa ngi noonu di yëg ci oto léegi nag fii la ñuy départ ñu sàkku ñaan rek ngeen ñaanal ñu ñu dem ci jàmm ak salaam fas yéene fekk fële euh, ci Sarsara ànd koog nag mboolem nag euh, organe de presse yi nekk diggante Touba ak Mbacke ñëpp ngi ànd ñoom kon Mbacke ñu ngi leen di jéglu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu dem jàmm ينمو الهائي بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو الهائي بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو الهائي بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي خضرا مخلبي بالاقتداء له شكوري بلا كفور وهو النسير منه فدائي لو اقترابي بلا اقترابي fii nu taxaw nii mooy Louga gannaaw ba ñu déparé fële ca kër Sëriñ Tuubaa gi nekk euh, Daaru Manaan ànd ak euh, force délégation bu takk takk ngir rek ñëw taaw fii fas yéene waaj nag ànd soxna maam Issa Mbacke am lu café ngir dem Sarsara waaye ci biir loolu ñu ngi ak jëwriñ ñi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi di sëriñ Abdou Lahad nga xam ne kenn la ci jàmbaari sax mi nga xam ne ñoo ànd ak soxna maam Issa moom la ñuy tàllal sunu micro euh, mu yëkkati ñu ay kàddu résumé ñu yoon yi ni ñu déparé ak li waral ñu escale fii waaye bu ñu fan la jaar ba keroog ñu àgg Nouakchott shot a jëmmal wala ba ba waa ñu ijaba fi zanni da'i ya zal jamali ya zal jalali ya khayra wali safil ya zal wuhudi ya kulli bi bila intihaai safi wusuuli bila gufuuli لجد بسولي جميع الرضاء هب لي تلاوة مع الحلاوة هب لي دراية لدى الأداء أصلحت حالي بلا ارتحالي ñu ngi ci yoonu Sarsara ni ñu ko baaxoo defee at mu jot ci ndigalu ki fi nekkal Serigne Touba waaye di ko ànd ak eh, jàmbaar joo xam ne tam ñëpp ràññee nañ ko ci yoon wi muy soxna maam Issa Mbacke bintu Serigne Modou Fati Xari ibnu Cheikh Mazamba ak délégation bi nga xam ne moom la àndal jóge Touba ak délégation bi nga xam ne ajaratu Famaloo moo ànd ak ñoom bàyyi ko Ndakaaru guy Masaalikul naan ñu daje fii nag ci Louga niñ ko baaxoo defee at mu jot eh, fii ci Louga nag eh, li tax ñu daje fi du hasard ndax xam nga ne sëriñ bi bi muy tukki tukkeem bi jaar na ci barab bu tedd bi di luga Euh, moo tax ñu jaar fi soxna si tam dafay am nag ay daayira am fi ay wëllëre am fi ay xarit euh, ndax fii nu taxaw dañu fee mas a jaar aw yoon woo xam ne yoonu boppam la mu taxawoon fi rek ngir dallu xamante ak waa barab bi euh, ñu fas ak moom kóllëre ne ko saa way demati rek gànnaar na nga fi jaar booba sax Sar Sara commencé guñ di ko def biñ commencé di ko def ba léegi itam saa wu ñuy dem fi la ñuy escale fi la ñuy ndékkee di fekk soxna su baax ñuy wax soxna Isa ak borom këram di taalibi sëñ Abdoulaye mag waaye di fekk itam soxna Aïda Samb moom itam muy wëlëre soxna si ñu defar ay xewal yu bëree bëri di ko fi indi waaye ñu fiy dajee itam ak soxna Umu Jaw mi nga xam ne moo jiitee eh, ahlu café fii ci Louga waaye ñu fi dajee itam ak soxna Njaw Jang mi nga xam ne moom itam soppeb soxna si la nga xam ne ci télévision bi ko xamee waaye moom itam day defar ay xewal yu baree baree baree bari eh, xewal yooyu nag moom la ni taaxeerlu su egsee nu xewlu bu nu xewla ba pare nag def ñaan eh, soo a dem nag fi nga xamante ni mooy ndar ndar nag moom buñ fa jaaree escale bu gàtt rek lañ fay def ci fi ñuy wax euh, place Ablaye Wade ndax foofu la ñu war a jëlee recommandation bi nga xamante ni mooy yombal yoon bi ci gouverneur bi nga xam ne moo teewal nguuru Sénégal foofu ca Ndar euh, kon daje bi fii dajeeb kóllëre la waaye dajeeb négante la tam ngir ñi nga xam ne ñëpp dañoo war a ànd ak soxna si egsi waaw ren ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla boo gisee convent bi li ci ne ci ay oto ak li ci ne ci mbooloo da ngay xam ne Serigne Touba amul tànki gannaaw tànk kanam rek la am te li si Abdoulaye waxoon ne koy dox dox ne ku dem ma dem ku demul ma dem boo geesoo gis mbooloo ci sa ginnaaw kon ñii ñu gis ci mbooloo suñ ne jigéen moo leen jiite kon dañuy xam ne pas-pas rek moo am solo waaye du góor wala jigéen wala mag wala ndaw ci yoonu Sëñ Tuubaa waaye boo amee pas-pas rek nit mën nga ko am kon nag li tax ñu daje fii ci dugg mooy xaarante fi waaye itam xéewlu fi loolu itam toujours damay wax ne sant yàlla bu wér la ndax mag ñi daan fekk Sëriñ Tuubaa gànnaar eh, kenn ku nekk la nga daan yor ci looy xéewloo eh, ci sa ndigg ko daan takk muy këmbas cere léeg nga jaar ci barab ñaan naan ñaan ndox naan jàllalee ko loola ngir mën a dëgëral sa ndig ngir mën a àgg Serigne Touba tey nag yàlla dimbale ñu ba tiraanga yi bari na lool ñamu Touba lañ fiy xéwloo ba mu des kon nag alhamdulilahi rabbil alamin buñ fi wàccee tam mbokki taalib yi bëgg julli yor yor julli bëgg jàng alxuraan jàng alxuraan ñu bëgg jàng xasida jàng xasida ndax mbirum Sëñ Tuubaa mu ne tam na ko war a teg ci sunna te daa waxoon ne tam màggal gu ñu may màggalal rek nañ ko teg ci tax simahu bi sunnati yaquduna lil jannati bi ansdiyaadi li minnati muxlisin wa asami waa café gi tam ña nga di tàngal café gi fas yéene nag may ñëpp ñu nekk fii ci Louga ak garage bi fi waaw wàllu coordination bi nag mu wax yàlla amul benn jafe-jafe ndax li amul jafe-jafe mooy ñi ñu ci àndal ñëpp ay taalibe la ñu bëgg lu baax ñoo xamante ni bi ñoom itam yëg mënu faa dem te sonnoo donte ñu ne yàlla wàcceel nañu coono bi lu bëree bëri euh, bu dee ci édition yu njëkk yi doon na am léeg-léeg euh, ñàkk xam gi ak ñàkk yëg ne coono bi lii lay jur ndax tam boo xamul coono bi li muy jur mën naa metti ci yow waaye boo xasee ba xam ne li muy jur munoo ko fàggul sa bopp sëñ bi rek la ko mën a fàggul dootu metti ci yow moo tax coordination bi amuñ ci benn jafe-jafe wax dëgg yàlla te léegi itam moyen de am na ba nga xam ne daanaka liñ am jafe-jafe sax ay benn numéro téléphone tardé wala turu nit tardé yooyu léegi ak jumtukaay xarala yi eh, toll nañ foo xamante ne bii nit mën na nekk fu différent waaye mën na laa yónnee mbooleem filiation am nga mën koo dugal moo tax amuñ ci benn jafe-jafe wax dëgg yàlla ah, eh, am ñun suñu pàcc fu mu yem ñun suñu pàcc mooy bu ñu jógee rek eh, Touba balaa ñuy àgg Rosso Mauritanie bu ñuy àgg Rosso Mauritanie danañ fekk foofu waa fédération Seexul Xadim bi nekk euh, Nouakchott seen jëwriñ tam di ko am pasteur di ko am itti di ko baax muy sëñ Abdou Aziz Diop bii maa ngi jokkoo ak moom ba 3 heures de matin incha allah ñoom yaakaar naa ne suñu àggee Rosso foofu lañ leen fekk su ko defee ñoom bu ñu àggee foofa nag ñu dañuy jël lépp teg seen loxo ndax ñoom itam ginnaaw ñoo nekk ci réew ma ñooy lijjanti loolu ñun suñu àggee dañuy topp seen ginnaaw rek waaye jàpp nañ ne daal diggante ñaari réew yi léegi ak ni Sarsara ak Mauritanie ak Sénégal ni ñu nekkee ñoo xamante ni bi ay ay ay rakk ak mag lañ wala ñu mën a nekk ay doomi ndey yaakaar naa ne daal suñu diggante du am benn jafe-jafe lu dul ñu dem ci jàmm del ci nga xam ne moom la ñuy doxali dox bi moom itam waa Mauritanie dañ ko teg place bu yaatu yaatu ndax damay wax ne Mauritanie mooy dëkk boo xam ne amul tijaan amul murit amul xaadir ñëpp teg nañ sëñ Tuubaa place bi ñu ko war a teg saa wóotulee sëriñ Tuubaa rek xayar fu lañ ciy teg kon nag ñoom yaakaar naa ne buñ ne taalibe yi sëñ jaar rek kenn ku nekk da nga def li nga ñu mën a jàll ci jàmm dem defi ziar bi eh, ci jàmm ak salaam daal kon ñu ngi sant daal amuñ benn tiitaange jàpp nañ ne lépp daal incha allah dana demee ni mu daan demee biladi azna rajai azabta ghammi mawata zulmi li jud bi ilmi da'in najai أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجاء تكيت نفسي فكت عبسي أذهبت لمسي سنت قتائي سنت جهاتي ست هباتي أبقيت ساتي مع العطاء لك رجوعي مع الجموع بغير جوع ولا خطاء لك التفاتي يا صلاتي بعد الصلاة مع السناء عنك رديت بك نسيت كما غنيت عن العناء لك امتداحي يا صلاحي يا الفلاح يا الغناء فيك أنادي fi kull al biladi